RTS. bu dee presse écrite bi ñu ngi remercier bu baax a baax a baax le populaire. ñoom itam wax dëgg yàlla def nañ ci ay article yu ama ama am solo. wax nañu itam ni TV Star. def nañ ci liggéey bu am solo. Euh, wax nañu ni rajo Alburaax de Tivaouane. ñoom itam ñu ngi def waxtaan bile en direct. Mhm. incha allah yal na leen yàlla fay yiw. ñi fi teew ñëpp sëriñ bi sant nañ leen gërëm nañu leen mm-hmm. li gën a neex ci édition ren bi uh-huh. mooy ku ñëw ca jataay ba mm-hmm. ni jërëjëf sëriñ Moustapha nga defe ko ci façon bi nga ko defee mm-hmm. yow nag loolu la miin ci yow bés bu nekk nga won ñu facette bu bees ci sa stratégie ci sa méthode ndax organiser lu mel nii ba pare bàyyi ko fi tukki waaw waaw ñu ngi may fàttaliwaat ni ma gouverneur mu ngi fi ak adjoint préfet bu Tiwaan ñu ngi fi tabaarakallah ah sëñ Fallou Mbacke nee na koorug geneen koor gu mu dajeel ëllëg koor googa dina rus ndax koorug ren gi moom koor gu spécial waaw waaye nag waaye nag dañuy bañ a sant yàlla ci koor gi ni mu demee ren ba nga bëgg koo def yoonu tool waaw bu ngeen fi santee gërëm ko ci absence am da koy def yoonu tool nañu ko ni na doon tëggum dënd sémmiñ benn yoon neex benn naqari benn waaw wax dëgg yàlla wallaay wallaay wallaay bu nu sañoon saa su nekk ñu jàkkaarloog yow ci bët donte ni bëtu xol yi teggeekuwul benn yoon li nga fi wax léegi doy na sëkk waxtaan sëriñ li nga wax ni am na ñoo xam ne dégluwuñu sax waxtaan wi am na ñoo xam ne dégluwuñu sax waxtaan wi nañu bokk ak yow yëg ni yaa ngi tiwaawan ñoo ngi tiwaawan boo woote woon biir géej tam ñu fekkali biir géej te kenn du lab kenn du lab loolu nag loolu nag bu sottee ñu ngi sant ñi nga fi bàyyil woon batale leen liggéey bi muy la comité permanent tudd nga leen léegi ala rasim seen doyen Serigne Ndiaye le comité permanent taxawu nañu njaboot yi lool lool lool bés bu nekk ñun ni kilifa gi nee kilifa gi nee na mm-hmm.

noonu la ñu loo noonu lan ñu waxee itam ni suñu wéyjur sëriñ Ahmad si Sarr ca Louga mhm. noonu la daan fekkee njaboot yee ñoom itam ci seen projection ya di leen wettili di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla fay yiw amiin incha allah amiin incha duuf ci nag bi mhm. xajul ci cin li suñu njaatee gi fii Tiwaawan Xalifa Mbay nee na Pape Serigne Mbay Abdou matériel bi ñu doon jëfandikoo ci seen projection yi fii mhm. dañu dem jëkk ko ab mun leen bu leen ma ko abbati li fi nekk lépp hmm. Serigne Moustapha Sy moo ko moom lu ngeen ci soob jël leen ko jëfandikoo ko nu mu leen neexee taxawu na leen hmm. ñaanal na leen yàlla moom tam yàlla na ko yàlla fay yiiw sëriñ bi loolu moo doonoon kàddu yi gannaaw li nga fi wax kenn war woon a yëkkatiwaat kàddu waaye dafa fekk ci penc mbooloof rek ñu sant ñëpp gërëm ñëpp suñu mbokki bopp yi ñoom xaaji Papa Gaye ak ñi mu bokkal liggéey bi ñëpp mën a taxawu logistique ci wàllu matériel ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm kon camarade bu fekkee am na lu ci manqué ngeen jéggal ñu ko waaye mënuñu wax lu ëpp loolu cant yeeg ngërëm yëpp nañ ko def benn dànk teg ko ci loxo Serigne Moustapha moo xam ku muy sant moo xam ku muy gërëm waaye ñun daal canteeg ngërëm yeeg yëpp lem nañ ko benn dank teg ko ci sa loxo si xafizakumullahu wa ayyadakum wa raakum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu guddi na ba noppi am na moom niñ ko daan waxee rek wolof mooy wax ni lu neex du doy ma ni lu baax du doy waaw lu baax rek a dul doy mu mel ni tabaarakallahu e ñu bëgg jël werde ñu tàllal ñu jox leen ko leen ko joxe ba noppi rek ñu ñaanalante ñu libéré nit ñi bu ko defee yeneen a ngi ñëw parce que yi ñu programmé woon noonu bu ñu wooree rek ñu jëm ci waaw incha allah dinañ dem Ndar dem Louga dem kawla dem Touba waaw waaw incha allah waaw bu ko defee tabaarakallahu eh, ñu pare yëpp incha allah te taxaw rek incha allah dañu am ay mbokk responsable yu tawat mbokk yi di yónnee di wax ni nañu leen defal ñaan dinañ leen boole ci biir ñaan bi waaye itam ma di leen jotal sama njaalu bopp ci ñaar benn bi mooy maître Moustapha Diop ah wallaay ndeysaan li mu daj ci ñun li Moustapha Diop daj ci ñun wallaay nit dootu ko daj waaw ci sunu événement yi Moustapha Diop lu ne daj na te man ma ci xam dara wa ndax kérok bi ñuy def sunu procès mom rek mo ñew en tant qu'avocat fekk ma ci euh, euh, prison bi wa bi ñu ñëwee fekk euh, régisseur yónnee pour ma wara pare pour dem ci palais de justice ba wa mané len duma dem wa wa régisseur bi fekk dafa yónnee woon ah ñu ñëwee wax ma ko ni ma régisseur nee nga pare ma ne ko duma dem parce que waaye tabaarakallahu maître Moustapha Diop fayda ji ci def ak taxawaay bi te booba fekk na jiboka yónnee presque généraux yi mu am lieutenant yeeg colonel yeeg yëpp ñu ñëw ci prison bi pour ni bu ma lànkee nañ ma forcé waaw waaye moo am fayda gu day ni ma Moustapha Diop ni juridiquement boo nanguwul dem ci procès bi kenn warul la forcé nga dem ci procès bi waaw def ci faydaam rek nag ñu yónnee sommation mu bind ci kayit gën ni ñoo lànk waaw fayda boobu ci laa ko jàppe ba léegi waaw waaw moo tax keroog bi mu faatoo te fekkuma fi ma téléphoné maam Cheikh bi ne ko demal ci ñoom Babacar ak ñoom sëriñ nga ànd ak ñoom ak waa dayire bi yëpp ndax dama fi nekkul bu ma fi nekkul may teew waa ñoom dem ñu dem teew fa man leen bu ngeen paree ngeen defal ko xadaratul jumaa waaw ñu defal ko xadaratul juma ñu toog tuuti ñu tàggeeti ma sunu jigéen ba ca Paris soxna Awa Sow bi lay ndeysaan mësuma gis ci àdduna soxna bu baaxee noonu waa wa tabaarakallahu ma daal di téléphone soxna Fatima ni ko àndal yow itam ak ñi nga mën a àndal rek ngeen dem ca dëj ba waaw ndax dafa amoon taxawaay ba mën dama mujj jaaxle ci moom bokkam yépp a ngi toog fii ñu ngi nii fa tabaarakallahu ba tax nag ñu ngi leen di jaale lu ñu bokk te di ñaan yàlla rek yàlla na suuf sedd ci ñoom te yàlla yéegale leen ci barzaxu Sëriñ Babacar mu jox leen ñamu am fa tabarakallahu dañu wax ni serigne Abdou Aziz suñu wayjur ci daayiraam bi daayiratul abrar yone na fi une délégation ya kana Abdou Dramé nga wax ak mawdo Wele ñom lañ fi ak Ibrahima Ndiaye ñom le serigne Abdou yone pour ñu téwal daayiratul abrar bi nga xamni mom moko jité ko jiite fa tabarakallahu mu melni kon nak moom ku ko topp fi lañuy ñuy yendu fi la ñuy fanaan waaw eh. ñu jàng kon fatiha eh, tabaarakallahu sama mbokk tale si góor gi moo ma waxoon ni ma Moustapha Tall ku amul moroom la waaw mu ne ma ndax nit ñu ngi koy natt ci pastif moni ma tëttaa ko ku am Pastef la wa moni ma motax sen collaboration ak mom lu ma rafetlu la waaw na ngeen ko baye xel te diko ko jox xalaat ah booba yag na booba ci jamono ablay wad la won mu melni ni ba tey tabarakallahu lolu mo fi nek ba legi jógu fi moom nak mom lañu jox mu nek maire ci niveau Thiès ñom Serigne ñu nga fa tabaarakallahu kon la war ci jàppale ko incha allah ñoom xam naa ni bu ma leen ko waxee bu ma leen ko waxul yëpp buy farata bu jotee dinañ ko def ndax ci lool lañuy ñu yaru mag ñoom waaw ku ci ne xam nga li nga war a def buñ la ko waxee ak buñ la ko waxul yëpp nga defee ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu ñaan bokk ku ne jàng fatiha jàng lii la fi qurayshin ñu bamtu waamanahum min xawf ñetti yoon jàng ayatul kursi ak salaatul fatihi waaye itam rek li Malick waxoon léegi ñu gën ko bàyyi xel te mooy yokk cant bi jëmale ko ci TFM wax dëgg yàlla ci détermination ci fexe ba daara ji wax dëgg yàlla mu di ko def ci façon bi mu koy defee

وتبارك الله مديكو نيو بو باخ ديكو سانت وا نخي تام ودغ يالا فاتيوول لي نيو يالا بولي وون ماك موم تي دارا جو بليغي والله نيسان فمو نيك داف كوي سيد وا تاخنا ماي فاتيوو مكو بن يوني ان شاء الله وانا خمنا بو نيو جوغي رك ماك يو نيو دم سونو روكو ماك يو واو واو ان شاء الله كون نك نيو جانغي نيان ان شاء الله بسم الله mm -hmm.